ñun suñu komba mooy xeex ak bakkan ak seytaane waaye du xeexante ci suñu biir du xeexanteeg confrérie du xeexante ci wàllu àdduna mais fexe ba nott sa bakkan ba du la defloo njaaxum ndax njaaxum bu nit def rekk ñaari seytaane la ak bakkan moo tax bu weeru kooree dañuy yeew seytaane duñ ko yewwi lu dul koor gi jeex waaye teewul toujours yaa ngi def njaaxum bakkan a fi des loo def koor muy njaaxum rek bakkan la moo tax toujours nit fu mu toll dafa war di muslu di résister combat boobu bakkan ak seytaane ba duñ ko daan werante waaw léegi bu fekkee ni doomu soxna yi dootuñu werante ci xam-xam du dañuy werante ci saagante mais ana doomu ana doomu soxna kon doomu soxna amatul noonu la doomu soxna yi daan waxante waaye du saagaanteeg sosalante ak tudd ay ñaawteef loolu yiwul doomu soxna war ko defanteeg moroom ma noonu la doomu soxna yi daan defante waxante ci xam-xam waaye du xuloog saagaag dem ñu wër la ci gàmm nga wax lu la neex waaw gàmm goo xam ne say taalibe rekk la wër loo wax ñu fet loo neex wax ko loo neex wax fa du du du du lu yiw du lu yiw yiwul ñu di leen woy it ngeen def seen bopp benn ca moo di y a beaucoup de mouvements dans la maison mais mouvement yooyu comb combattanteeg ngeen moytu ñuy jaar ci suuf di ñëw di leen diviser parce que am na taalibe yoo xam ne loolu rek mooy seen métier tas kër dikk ci Moustapha wax ko dem ci Habib wax ko dem ca Serigne Baye Abdou wax ko dem ca Asi wax ko dem ca maam As wax ko di jaxase rek amu leen ci benn intérêt ànd mooy seen intérêt ku ne mën na am sa muuma mais bu ngeen ci jógee kenn ku ne jàppalanteeg sa morom ku xewle rek ñëpp jóg kër gi nekk benn yàqkat yi dootuñu am fu ñu jaar yàq waaye bu ngeen leen dégloo rek. yàq te kuy dem doo déglu yàqkat kuy dem doo geesu sa gannaaw ndax dama amoon benn jigéen ndeysaan daanaa ko may xaalis su ñëwee ñu di ko wax looti jàllo dañ ko jàppe woon dof waaye nit piir la su ñëwee dama naan bul déglu bul geesu de bul déglu yàqkat yi toppal say mag rek bul geesu de boo gisoo daa gis ku la joxoñ koo foogoon ni du la joxoñ loolu rek la ndaw soosu su ko defee ma dindi vingt jox xam naa moom la bëggoon waaye li ma waxit man bon bind la pour ma bul bul déglu dégloo ñu wax la loo naqari boo gisoo daa gis ku lay joxeñ koo foogoon ni du la joxeñ nga daal di ko commencé mere kon nag bu geesu tëdd rek loolu ma daan wax su ko defee li leen di dénk rek moo di continuer seen liggéey te bu leen déglu yàqkat yi bu leen déglu ñu leen di wujjale dañuy wujjale ñii ci kër gi wujjale doomu sëñ Mansour yi wujjale doomu Cheikh Tidiane yi wujjale doomu sëñ Moustapha yi wujjale ñoom Moustapha yi ñooñu rafetul kër boo ñëwee ñu boole la ci def la na seen bopp yow tam melal na ñoom da nga jéem na ñoom nee maa ngi leen di woo ngeen def benn unité la ko dalee ca base bi ba ca sommet bi ngeen nekk benn ci niveau yëpp nag ci niveau yépp nekk leen benn bu leen combattrante bu leen jëwante bu leen jëwante parce que loo bañ ñu dégg ko bu ko wax na ngeen ko def muy pënd rek boo ko fëggee mu jeex wax nag dafa garaaw te loo bañ ñu dégg ko bu ko wax loo bañ ñu xam ko bu ko def mooy loolu rek su ko defee muy loo xam ni mën nañ ko faj ci anam yu bari waaye bàyyi leen ko mu paase li koy faje ngi ñëw